di wax ne tey jii moom coalition defar sa gox moo aye woon dàngu candidat bi aye woon nag mooy maam Omar Mbeng man mii taxaw di candidat à la mairie de ville donc coalition defar sa gox defe naa bu ñu ko waxee rek maanaam changement la ñu bëgg a Tëngéej defar sa gox yaakaar naa ça veut tout dire ah coalition boobu nag euh, mu doon coalition bi nga xam ne ren la taxaw euh, ñu am ay représentant fépp si candidature yi nga xam ne moom mooy les onze communes de de Rufisque ben commune lañ ci amul candidat muy yenn muy Sendou donc coalition bo xamné la da fay viser toutes les communes d'abord benen bi euh, da fay viser aussi le conseil départemental en même temps aussi coalition bi man mi taxaw man may candidat à la mairie de ville donc mu don candidature coalition bo nga candidature manam coalition de la rupture la ko tuddé pourquoi coalition de la rupture parce que coono Tëngéej gi nga xamné mo fi nek yag fi mu lu mat fanwéri at ñeent fukki at ñu nek ci ay coono coalition bi mo wara changer changé coalition bi wara changer parce que ay cadres raffinés ay cadres yo xamné moralité baxna na expérience walu développement baxna na man mi di wax presque 20 ans d'expérience mangi ci projet donc li jëm ci ONG projet lu mat 20 ans mangi ci liggéey nek ci administration kon ñun amul luñu ñuy jaaxal ci walu développement Tëngéej ñun nak du dañu nek ay doomu Tëngéej yoo xam ne du ñu askan wi di sonna askan wi di torox

moy approche de proximité dañu bëgg nit ñi d'abord le de gis la maire bu quartier man dangu gi dëkk xawma kañ la gis maire le bopam luma fukki at gisuma maire man dangu dangu suma gis maire kon lolu yakarna ñun rupture de dañ koy indi manam à askan de di leen nak ñu leen ñun ay homme de projet lañ financement jaaxaluñu fuñu wuté formation jaaxaluñu li de doléance population bi la recueillir dans un plan d'action def ko gestion axée sur les résultats ndax suñu gestion dañ koy suivre comme ni ñuy gérer projet noonu lañ bëgg a doxalee Tëngéej lépp dañ koy suivre groupement bu ñu financer, financé danañ la toppa xool sa financement fan la dugg chaque mois ñu ñëw defal la évaluation xool contrôle non lañ ko bëgg a tegee wutal la ay kayit donc loolu démarche bu bees lañ bëgg indi groupement yi Tëngéej kenn amu si kayit ku am groupement kayit kenn kenn koo si seeti mu ne la aw La kayit lan mooy sa sa sa récépissé amoo ko lan mooy sa ninee amuloo ko kon groupement bu amul bu amul reconnaissance juridique doo mën a am financement nañ waxante dëgg loolu maire yi fi nekk jéemuñu si def benn initiative ñun le côté boobu dañ ci mettre l'accent carrément ci wàllu approche de proximité en même temps vision développement def tout ce qui est transformation formation professionnelle dañ ci war a taxaw jeunes yi nga xam ne métier nekk ay carreleur ay maçon dañ leen di former ñu mën am technicien à la limite ñu am seen CAP ou seen BTS ëllëg ñu mën compétir def ay marché donc jeunes yi fi mu nekk nii lu mel ni Dangu bëri na ay corps de métier mais seen niveau la ñu bëgg a rehausser Dangu ak yeneen quartier bi lañ ko bëgg a def maanaam li ci wàllu formation professionnelle des jeunes bu ñu leen formé ba pare nag maanaam ñu trouver leen des emplois jeunes yi chômage bi bëri na actuellement ñëpp gis nañ ko Tëngéej parce que ñu ci bëri ñu ngi viser dem mairie ba mairie ba 1800 emplois plus de 1000 emplois mënatul la def dara li ñu man mooy créer ay ay créneaux porteurs yoo xam ne foofu la ñuy dugal jeunes yi dugal leen fa ñu mën a am am seen i métier am seen i financement li jëm ci wàllu agriculture wax naa ko sànq man ingénieur agronome la li jëm ci wàllu domaine agricole yi am nañ si expérience kon jeunes yi di chômer à Tëngéej danañ leen trouver des des des dans les fermes agricoles ñu am ay projet ñun xam nañ fa layu ñuy jëlee financement yi xam nañ ko mën nañ leen former ñu am ay métier agricole yoo xam ne ëllëg di nga mën a jógee daangu gi dem ba sàngal kam liggéey soo añee ba pare nga ñibbi waa sa kër weer bu dee nga am li ngay am donc li jëm si wàllu assainissement wax ko actuellement en matière de route c'est zéro ñëpp gis nañ ko kon nous dinañ wuti ay partenaires yoo xam ne dinañ ñu defal ay tali yu baax bu ñu defalee tali yu baax li ko jiitu mooy assainissement assainissement amul man daangu man maay man maa fi doon def projet pour indi assainissement mais ñëpp xam nañ ne assainissement ça demande des moyens dafa faire ay partenaires te partenaires yooyu nag bu ñu yàlla dimbalee ba ñu jot mairie bi danañ fexe lu ñu wutee ay partenaires yoo xam ne ñooy defar tali defar financer jigéen ñi d' abord installer ay micro ay mutuelle d' épargne de crédit pour les femmes yoo xam ne dañ koy contrôler defar assainissement bi defar environnement bi te ngay amatul environnement bu baax. xeeñ na salte na canal baa ngi nii gis ngeen ay cantine lañ si def ñun dafa mel ni ñun amuñu ay maire nañ waxante dëgg lu mat fukki at lu mat ñaar ñeent fukki at Tëngéej 40 ans Tëngéej est en de souffrir ñun rupture boobu la ñu bëgg a dindi ñu nekk ay cadre nag gars yi fu ñu amee xam-xam am nañ ko. Il y xam-xam bi bi kon li des moy na nit ñi fexé ba ñu jël li nga accéder à la municipalité na jël maire deux ans dinañ gis changement. Nous mom engagé wa nous xam yalla première chose li ñu def moy planification c'est nit wax ak ñoom jël seen doléance teg suñu programme di ko évaluer nag at mu jot ñu évaluer suñu programme xool lan ma si baaxul ñu changé ko lu si baax ñu continuer ko loolu bi ñu ko defee balaa cinq ans dinañ gis changement au niveau de Tëngéej wax naa ko côté éducation am éducation booy yi fii ay booy yoo xam ne am nañ master te amuñu amuñu fu dem bourse amatul booy yi alors que y a des possibilités d'offrir ces à ces jeunes ñu jox leen ay bourse ñu dem jàng à l'extérieur ëllëg bu ñu ñëwee ay cadre ay ingénieur ay doctorant ñooñu ñooñu indi projet yi indiwaat ko Tëngéej kon loolu dañ ci war a taxaw mairie bi amatul subvention ASC yi maa ngi koy wax léegi amatul subvention mairie bi daal la dafa toog lenn la man mooy contrat mais mairie boo xam ne contrat aide aide aide tabaski nga def ko 15000 francs 15000 francs lan la ma dal ni tabaski mais mairie boo xam ne amul initiative de développement amul projet booy teg mais kooku du mairie mairie li ñu yaakaar si yow démembrement état la mairie mooy démembrement état démembrement état lu état waroon def yow mairie yaa ko war a def parce que le maire il a le cachet de l'État du chef de l'État maire contrat le contre droit contrat dem les États-Unis ou le Canada indi ay partenaires te président du ko wax dara loolu mooy rôle maire ñun nag loolu jeunes yi ñoo ko man maire a fi nekk ku si def nga deux mandats trois mandats gars yi loolu day deux mandats. ko nangu le dafa war a changer